يا الله صح الجلالة ملك المملكة المغربية دام الله عزه والشعب المغربي ما أصابه جراء هذه الكارثة المفزعة وبهذا الخصوص بعث صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنعفى الخليفة العام للطريقة المغربية هذا برئاسة معالي الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب مبكي ابن خادم رسول مؤسس الطريقة النبوية. بعث صاحب الفضل هذا الرفد لتقديم واجب العزاء والمواساة نحو أشقائنا مطلوب أشقائنا المتضرر في هذا الزلزال المدمر وأيضا تصميم مساهمة رمزية إلى سعادتكم باسم الطريق المنى هذا هو سبب الزيارة ونختم هذا الخطاب بقراءة بيتين من قصائد الشيخ القديم مؤسس الطريقة المنهجية واشفي جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتق بهم ولا توافقهم بالكفر بل بهم هكذا نفع عند التضرع سائلين المولى عز وجل أن يرحم الموتى ويخفف العناء عن المتضررين وأن يحفظ المملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا وسائر بلاد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euh, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, euh, je m'en vais tout d'abord vous présenter la délégation que l'honorable Khalif général de Mouride, Serigne Mountakha Mbacké, a voulu envoyer auprès de vous, auprès de Sa Majesté Euh, le roi Mohamed VI, ce que vous représentez ici. Euh, il nous a demandé d'être conduit par son demi-frère, ici présent, l'honorable Serigne Abdou Samad Mbake, euh, fils de Serigne Chouaïbou, lui-même fils de Khadim Rassoul. Euh, il est accompagné par euh, Serigne Chouaïbou Mbake, qui est le fils du Khalif général de Mouride, Serigne Abdou Khadir Mbake, votre vieille connaissance. qui joue les intermédiaires entre lui et euh, le, royaume chérifien. Et moi-même, Khadim Diop, euh, son secrétaire général. Donc, le Khalif général de Mouride, Excellence, en composant cette délégation, a voulu en son nom propre et au nom de toute la communauté mouride et musulmane présenter à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Allah le protège, ainsi qu'au peuple frère marocain, ses sincères condoléances à la suite du terrible tremblement de terre survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre dans votre cher pays frère et ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. L'honorable Serigne Muntaka prie que accueille tous ceux qui ont perdu la vie en son paradis Firdaus. Et il prie également qu'il aide le peuple chérifien, nos frères en islam, à surmonter cette épreuve très dure qui appelle de tous les musulmans leur solidarité à l'endroit du peuple marocain. Pour marquer sa solidarité agissante et celle de toute la communauté, le calife envoie vers vous Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, cette forte délégation conduite, comme je viens de le dire, par son demi-frère ici présent, Serigne Abdul Samad Mbake, qui vient vous apporter réconfort moral, mais aussi un soutien symbolique d'un montant de 100 millions de français CFA en guise d'assistance au sinistrés qui sont nos frères en Allah. Il formule en même temps d'ardentes prières à l'endroit du peuple marocain, afin qu'il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité sur le chemin tracé par les hommes de Dieu que nous avons en commun et grâce à qui nous sommes unis par la foi. Voilà les propos que le calife nous a, chargés à travers Seigne Abdoul Samad Mbaké ici présent de transmettre à travers votre personne à Sa Majesté le roi Mohamed VI en priant d'agréer nos salutations les plus respectueuses et les plus cordiales. Ah. exprimer ma hmm. profonde gratitude pour ce geste euh, <coughs> euh, très symbolique. D'abord, euh, la venue de la délégation du, haut niveau, du très haut niveau, donc euh, y compris donc les membres de la de la famille du Cheikh Montara. Donc ça, ça dénote vraiment de, euh, de l'intérêt que euh, son éminence porte euh, au, au, royaume chérifien au, et puis au lien particulier qui le lie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, euh, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste. Euh, C'est encore euh, un symbole de cette relation toute particulière qui a toujours euh, lié euh, la ville euh, euh, sacrée de Touba euh, au royaume chérifien. Et ça, enfin, dénote de cette solidarité qui a toujours existé entre nous et qui est aussi un des, des piliers de l'islam. l'appartenance à l'islam, c'est aussi cette solidarité euh, permanente, euh, cette solidarité agissante entre musulmans là où ils sont. Donc euh, je crois que cette, cette démarche est à saluer. Est à saluer bien qu'il soit tout à fait naturel dans nos relations quotidiennes, mais cette euh, démarche donc est, est, vraiment la bienvenue et elle est appréciée et nous sommes vraiment fiers de cette relation toute euh, humaine, euh, spirituelle, euh, mais aussi de ce soin particulier que chacun apporte à l'autre. Euh, donc vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas seul. que nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi dire que dès le début, son éminence euh, s'est adressée à Sa Majesté le Roi euh, Mohamed VI Amir al-Mouminin euh, en lui adressant, donc en lui envoyant une lettre de condoléances dès le début. Donc, euh, et je crois que la boucle est bouclée, comme on dit, et euh, les faits sont là. Et nous vous disons toute notre reconnaissance euh, et toute notre euh, considération. Et je vous demanderai de transmettre euh, à son éminence euh, vraiment les remerciements les plus chaleureux de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin et aussi lui transmettre les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Euh, nous sommes, euh, nous, encore une fois, merci euh, pour cet élan de solidarité admirable. Et Inch'Allah, qu'Allah protège nos, nos, deux pays, le, le, le, le, Sénégal et le Maroc, mm -hmm. et qu'Allah protège nos leaders, mm -hmm. et qu'Allah euh, donc nous rassure dans nos pas. et nous permettent vraiment d'aller de l'avant euh, sur le plan de la, de la, de la paix, de la sécurité, de, de, de la prospérité. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين wa ala alihi wa sahbihi rawi radwani wa aleykum wa taala wa bokki jullit yëpp noo ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëwoon fii ci ambassadu Maroc ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogee jataayub Cheikhul Khadim fekk fi ambassadeur bi ak ñi mu àndal ci liggéey bi ngir yëkkati njaalum sëriñ bi teg ko ci loxoom ak ndimbalam loo xam ne lu tuur la ci limu yéene mu dem ci kilifa ak Maroc gépp ak njabootu Maroc gi nekk fii ci Sénégal ak ga nekk foofa njaal mu matale moo xam ne da koo jëmale ci euh, réew moo xam ne ak Sénégal dañoo bokk di dëkkandoo di ay doomi ndey te yàgg lool te ànd bi rafet naka jekk mu waxoon ne nag nañ ñëw fekk ne jiite jiitaloon na ay leetar yooyu njaal ba mu egsi woon ci ñoom waaye mu yebaloon ma ne naa ànd ak njaboot gi sëñ Chouaï bu di doomam sëñ Abdul Xaadir sëñ Chouaï bu Bas Anta ak sëñ Xaadim mii di jarbaatam tey secrétaire am ak mboolem délégation bi ñu ci ànd ngir ñu jëmmal ko fi ngir tiisu metti wi ak nattu bii nga xam ne ku ne xam ne ne eh, jullit nattu lay am waaye mbugal moom ci ñu gëmut yàlla la jëm kon nag li am nattu rek la muy ñaan ak sun borom mu teggi nattu boobu te jàmmal leen te may leen tawféex ak mucc di jaare ñëpp di nuyu bu baax baax ambassadeur bi di rafetlu taxawaayam ak taxawaayu kilifaam gi mu fi nekkal noo ngi di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. basaka yaa baasitul amaala li faskur ma baasatati daarayni yaa allah باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتي دارين يا الله قبلت يا قافل الأذى لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله